Youssouf Mbengue maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nga nekk njiitu fédération des associations des sénégalais de l'extérieur euh, la et de retour la FASER a nekk aussi euh, njiitu la maison des émigrés euh, ñu lay laaj ci recrudescence su émigration irrégulière fan yi xale yi faatu ci géej gi bari na trop loo ci xalaat. tey eh, ku ba balaa gannaaw ba ma la nuyoo maa ngi nuyoo ñëpp ñuy déglu rajo bi biir réew ak bitim réew di sukk di jaale ñi nga xam ne ñii wàññeeku nañu ci eh, mbëkk mi di jaale famille di jaale Sénégal yëpp di ñaan yàlla yërëm leen xare leen àjjana ndey kumba dama am métit dama am tiis dama am naqar ndax xale yi ni ñuy deewee ñaaw na te lu ëpp fukki at ñu ngi ci même situation bi saayu mbëkk mi jógee ñu compter ay téeméeri téeméer yu ci ñàkk seen bakkan ñetti fan lañ koy wax pare nañ si bu suba ñu yaakaar ne jeex na mu jékki-jékki jógaat loolu nag état bi daf ci war a jël euh, euh, saafara état daf ko war a saafara ndax mbir mi tiis na métti na ndax doomu bakkanu doomu aadama dafa foor te benn bakkan bu demee rek ëpp na drame bi ñu gënoon a am bi gënoon a rëy ci Sénégal mooy batale Joola muy lan ñaari junni doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan mbëkk bi tey ñu ngi ci ñeenti junni jeunes yoo xam ne yi ñàkk nañ ci seen bakkan te jeunes yooyu waroon a tekki fi waroon doonoon avenir u Sénégal mbir mi li ciy jàngat nag mooy Euh, état war na xoolaat mbir mi nan lay doxee mu trouver ko solution ndax li ñuy wax ne moom moo tax ndaw yiy dem du wax boo xam ne bii vraiment wax bu taxaw la kooku lay la puisque bu dee ndaw yi bu ñuy dem mën nañoo liggéey ba am euh, ñaata cinq cent mille francs ñiy liggéey ba am un million nga gis ñoo xam ne dañu yore trois millions di xaar visa bu ñuy jënd kon yoo loolu yaakaar naa ne nekkatul problème mu ñàkk liggéey rek nekkatul problème mu pauvreté problème mu ndóol problème bi lu si nekk moom mooy si mentalité yi nekk si bopp yi la que nit ki bu dee lenn rek la gis mooy dem mënoo ko wax leneen lu mu dégg mënta gis leneen kooku yaakaar naa ne pour tere koo dem dina jafe boo xoolee lu mat ñetti million Guinéen ak yeneen nationalité ñu ngi fii si réew mi di fi liggéey di fi tedd du mu ne sax Guinée ndax ay sénégalais guinéen lañu ñun ñëpp benn lañu ñoo bokk réew mi ni ñu bokkee continent Afrique bi mais sénégalais bi suñu ndaw yi dafa bëri liggéey yoo xam ne yi dañ koy xeeb dafa bëri liggéey dafa bëri ñoo xam ne aussi dañu yàkkamtee am mais fii yaakaar naa ne bu doy xeeboo te yàkkamtiwoo di nga am loo xam ne lii mën nga see jàpp puisque loolu moo tax ñoom ñu mun a toog jàpp si yooyu ba am cinq cent mille francs yooyu ñu continuer mais dañ koy bëgg a passé daal di dem loolu nag li ci métti mooy maanaam communication bi ñu leen di bi ñu leen di wax puisque bu ñu leen bëggee gëmloo ne dee fii ak dee si ndox mi benn la Sénégal dafa métti jeunes yi amatuñu yaakaar loolu yaakaar naa ne du wax bu rafet te képp ku gëm Sénégal waroo waxe noonu ndax Sénégal fii nit ñi deewuñu ak xiif jeunes yooyu di dem yaakaar naa mënoo dajale euh, nuñ koy waxee cinq cent mille francs wala un million ba kooku nga naan ko amatul yaakaar ku toog ba dajale mën a dajale cinq cent mille francs kon fii war nga fi mën a am yaakaar ndax boo continuer di nga amaat lu ëpp kon ñiy wax loolu ñooñu ñu ngi pousser xale yi ñuy dem te loolu du wax bu rafet du wax ku gëm sa réew du waxu ku bëgg sa euh, pour xeex mbir mi gouvernement wu Sénégal euh, teg benn stratégie bu bees tàq pour xeex euh, émigration migration irrégulière naka nga gisee loolu. waaw loolu man maa ngi woon ci cérémonie ba démb ndax invité woon nañ ma ma koy rafetlu lool ndax loolu dafa dafa doyul pour régler situation bi ndax ñoom pris naa ne. Euh, SILEC boobu léegi selmi sax la tudd euh, ñoom yaakaar naa ne Union européenne moom moo ko financé te Union européenne ñoom dañu am lu ñuy wax Frontex muy ay réew Europe yoo xam ne dañu lëkkaloo teg benn agence def ko comme police muy garder ndox mi li ko dale frontière u ba Espagne ñooñu nag li ñu yor ci alal doon am nañ budget quarante milliards am nay junni ak euh, nu ma koy waxeeti li euh, cinq cent junni ak juróomi téeméeri ndaw yoo xam ne yi ñoom dañuy liggéey foofu nekk ay alkaati di garde ndox mi am ay bateau am ay avion am ay radar ñooñu yaakaar naa bu dee mënuñoo téye xale yi ba gaal yi di leen romb kon yaakaar naa ne pays africain yi duñu mën a def liggéey boobu ndax ñoo leen ëpp moyen mais loolu aussi dafa am jàngat bu ma ci am dama xool ñooñu doole bi ñu am yépp nan la leen ay gaal di rombe duñu leen gis te yaakaar naa ne bu doon ñooñu ñuy wax terroriste la nga xam ne ñoo leen jaaxal ñooy dem di leen attaqué munam bu doon dañuy fay si ndox mi danañ leen mën a détecté te bu boobaa du ñu jàll kon nag loolu daf ci am benn complicité moo tax état daf cee war a taxaw bu ci état taxawul nag loolu day mel ni complicité lu moo tax ñun aussi ñu proposé depuis deux mille vingt bi mbir mi demee nii la ñu proposé benn concept bu ñuy wax dem dëpp maanaam dem dëpp loolu rek moom mooy solution loolu rek moom moo ko mun a faj amul leneen lu ko mun a faj lii da koy faj définitivement lu tax. Mhm. mooy boo xoolee ne tey amul benn ndaw boo xam ne di nga jël avion amoo visa li tax mooy wóor na la ne boo eggee ñu dëpp la doo jël bateau dem sa port ba. te amoo visa boo ko defee ñu dëpp la frontière terrestre bi it noonu la mais lan moo tax ñu nangu loolu ci gaal gi te loolu loi international la fépp foo dem yoroo visa dañ la war a dëpp buñ doon def bu ndaw yi demee ñu jël leen bañ leen bañ leen a lor daal bañ leen a sonal kuñ ci war a sang ñu sang la kuñ ci war a faj ñu faj la sole leen ay yére leen ñu ñëw ku dem ñu def noonu ndaw bi bu ko wóoree ne bu demee ñu dëpp ko du dem ndax du jël ñaari risque da ngay risque sa bakkan mën ngaa dee si géej gi dangay ngay sa xaalis perte ko ba pare ñu dëpp la boobu benn ndaw du ko nangu kon ndey kumba yaakaar na loolu rek moom mooy solution te yaakaar naa ne loolu ma wax kenn mënu koo teggi ndax ku ko teggi amoo leneen loo ma fay tegal kon nag état nañu mm. jéem a waxtaan ak réew yooyu mu concerné ñu teg convention boobu ña nga xam ne ñii jot nañu dem nag nañ leen dimbale ñu defal leen ñoom ñëpp ay séjour ñu toog di liggéey képp ku demati ñu dëpp la yaakaar ne loolu rek moom mooy solution bi amul beneen solution. Euh, maltraitance su migrants yi ci dëkku arabe yi nga gis ni ñu ngi leen di maltraité euh, bu baax a baax euh, ban jàngat nga ci am. waaw comme ni ma ko waxee sànq man loolu aussi dafa bokk ci li ma tëboon ne état bi ñun dañoo war a jàppale ñu mën a régler problème mu immigration bi man def naa fukki at ak juróom-ñeent libi jaar naa ci désert bi dem naa ba sa géej gi xam naa dañuy demee loolu yëpp boo ko boolee ak trente yi nga xam ne yi maa ngi ko liggéey ci activité migration yore association li ñuy wax la maison des émigrés yaakaar naa am naa expérience boo xam ne bii wuute nag ka nga xam ne dafa toog ci bureau ba sa climatiseur ba yaakaar naa bokkuñu expérience bi nga xam ne bii moom la ñu am loolu tax na ba ndaw ñi daanaka kenn mënatu leen sensibiliser que nit ki boo koy sensibiliser day fekk moom li ngay wax mu bëgg koo dégg mais bu dee li ngay wax nangu ko dégg kooku mënu koo sensibiliser boole ko da ngay gis ndaw yoo xam ne gis naa si ndaw boo xam ne jëm na tenter dem Espagne bi ñu demee ba ci géej bi seen chambre à bi toj ñuy waaj a faatu ñàkkul sax ñu ci faatu mais ñoom Croix-Rouge euh, marocaine ñoom ñoo leen for yóbbu leen faj leen ba mu wér mu ñibbisi mais dafa tàntewaat pour delluwaat par géej gi fii la doon jëlee gaal yàlla def police jàpp leen kon xam nga ne kooku ndey kumba kenn mënu koo sensibiliser ci dem ba waaj a dee mm. yàlla def mu sauvé loolu yeewu ko mu bëgg a delluwaat kooku kenn mënu koo sensibiliser kon jeunes yi problème bi problème mu mentalité la dafa nekk seen bopp kenn mënu ko cee dindi réew arab yi nag dañ di ñoo xam ne ñii nit ku ñuul moom dañ lay jàppee jaam munoo taaru wala nga am alal wala nga am xam-xam ba ñu naw la toujours jaam lañ lay jàppee ba pare réew arab dafa jarta dem parce que réewu arab pour nga dem fa ba am alal yombul ndax façon politique bi ñuy tegal gan gi pour gan gi nekk fa ba liggéey ba am alal loolu dafa jafe lool kon yaakaar naa ne jeunes yi daal bu ñuy dem mun mën nañoo éviter réewu arab ndax réewu arab du demukaay Hmm. Euh, avenir u ñi nga xam ni euh, Youssouf nga ñu ngi forcé dugg jël gaal yi euh, jaar si géej gi ba yegg Espagne une fois mooy ñi yegg laa waxuma ñi faatu mais ñi yegg bu ñu fa yeggee ban avenir lañu fa am ak nañu yegg xam nga loolu aussi lu jar a la hmm. puisque ñooñu di dem lu ci tuuti ñoo ci am avenir lu ci tuuti ñoo ciy am këyit mën a liggéey mais li ci ëpp ñii dinañ tàqalikoog seen sago ñii dinañ toog fukki at duñu mën a am carte de séjour te boo amul carte de séjour doo mën a liggéey ñii dem nañ ba sonn nañ amatuñu fu ñu fanaan ñii nga fanaan si gaar yi ñii ngi fanaan si suuf escalier yi ñii lu ñu lekk sax dañuy xaar ba timis bu magasin yi di tëj buñ tuuree seen mbalit ñu dem forfa la ñuy lekk kon yaakaar naa ne situation boobu bu doon dañ koy won xale yi fii di leen ko wax di communiquer yaakaar naa ne dina ci wàññi lu bëri mais toujours liñ leen di gëmloo rek moom mooy réew mi dafa métti Sénégal dee fi ak dee fële ak dee si géej gi ñoo yem te yooyu yaakaar naa ne du wax bu responsable nit ku baax wala nit ku bëgg Sénégal wax yooyu doo ko wax ndax loolu mooy pousser jeunes yi ñuy dem te boo xoolee fii li fi nekk suñuy mbokk gan yi comme nu ma ko waxee di liggéey ndaw yi bu dee xeebuñu bu dee yàkkamtewuñu ku fi toog da nga liggéey ba mën fee tekki ndax ki tax yaakaaram tas warta mën a toog fii di dajale ay un million cinq cent mille loolu waxin la boo leen ndaw yi seen yaakaar dafa tas puisque yow mi koy wax gëmoo loolu mais yow sa intérêt ngay sa intérêt moo tax di wax loolu dañuy fooye ndaw ñi te ndaw ñi war nañoo xalaataat xam ne politique yi ñu si ëpp dañ leen di fooye Sénégal toog fi tekki mën na nekk mais ñi fi tekki ñu si bëri xoolal suñ mag ñi nga xam dañ naan dugg si kër yi di jël ay butéel di ko jaayaat di jël ay xottu saako di ko jaayaat ñooñu tey koo ci gis millionaire la magasin yu mag yi suñu mbokk bool boole Saalum Saalum yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Youssouf Mbengue peut-être am nga euh, message booy lancer jeunes yi bala ñuy tàggatoo. li may lancer jeunes yi daal. mooy ñu jéem a fas jom. bu ñu xeeb dara. lu ñu am loo xam ne lii lu liggéey la te mu di ci am lu leen lew nañ ko liggéey bu ñu yàkkam si ndax Europe gën ñuy dem. li ko melloo noonu ay ndaw la comme ñoom ndaw yi Europe a tabax seeni réew kon nag ñu ndaw Afrique yi ñoo war a mun a tabax Afrique ndox a ngi fi suuf a ngi fi manqué wuñu dara ak lu mu métti métti ak problème yi nga xam ne yi ñu ngi koy ñu ngi koy jàmbat ci politique yi yooyu yëpp dafa laaj ñu toog liggéey te muñ ko te xam ne dara xëyul sotti ndax état bëri na ay jumtukaay yu mu teg yoo xam ne ñu ngi siy former nit ñi di leen ci jox ay financement donte doyul nag mais loolu war nañuy communiquer aussi ndaw yi di ko xam di fa dem pour mën faa am loo xam ne ni dina leen téye Sénégal too mën nga fee toog tekk fi doon millionnaire comme ñi fi nekk wasalaam voilà merci beaucoup Youssouf Mbengue ñu ngi koy remercier mu nekk président bu fédération des associations des sénégalais de l'extérieur et de retour FASER nekk président bu la maison des émigrés Youssouf Mbengue ñu ngi koy remercier bu baax a baax merci euh, auditeurs et auditrices